jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñi ngi tey en immersion fii ci hôpital Abass Ndao nekk ci service SAU bi fas yéene nag ñëw intéressé wu ci soins infirmiers li ñu leen bëgg a tey jii nii moom mooy rôle bi nga xamante nii am na ko. mission yi nga xamante ni am na ko mais ñu bëgg a xam tey importance bi nga xamante ni tey paramédicaux yi am nañ ko ci système de santé bi rawatina ci système de soins bi tey ñi ngeek Arona voilà Moussa jërëjëf donc je pense que lii moom lu ñuy rafetlu te lu baax la askan bi comprendre euh, système bi naka la ci infirmier yi di liggéeyee ak seen rôle dans le système donc comme ni ngi ko waxee ñu ngi ci service SAU mooy service d'urgence euh, d'accueil d'accueil et d'urgence mooy nga xam bu ma bi ñëwee fii lañ koy recevoir donc actuellement fi ñu nekk ni mooy salle de tri bi te li ci am solo mooy salle de tri mënoo xëy

defal voie pour mën a permettre maintenant jàllale traitement bi nga xamante ni moom la médecin yi décidé ci euh, feebaram bi nga xamante ni moom la amee. d'accord alors léegi expliquer ñu lan lay defal. actuellement nii dafay euh, dafay placer voie. daf koy defal voie perfusion ab parce que boo ñëwee SAU gestes yi ngay def yëpp lu gaaw la war a doon. pour mu gaaw souvent moom la ñuy wax da ngay jaar par la voie parentérale mooy par perfusion par injection ainsi de suite donc malade bi voie bi ñu koy defal am na ci rôle bu joué bu mag bu muy joué parce que voie bi day jàll sa traitement ba pare voie de sécurité lay doon ndax léeg mun mën nga recevoir malade mu nekk ci état boo xamante ni boo ko bëggee transférer balaa moo yegg ci beneen structure bi mun na am collapsus. léegi Arona bëgg naa am tuuti lu ma la laaj mooy da nga wax ñoom comme ñu ngi ci service d'accueil et urgence. rapidité bi nga xamante ni yaa ngi koy wax ci infirmier bi nekk fii nii est-ce que am na benn plus d'abord ñu ñëw ci infirmier d'état bi en tant que tel lan la. waaw l'infirmier dafa di agent boo xam dañ koy tàggat te léegi boo xoolee depuis 2009 dañu relever niveau bi. léegi niveau licence la ñuy commencé te boo xoolee léegi ci formation bi dem nañ ci sax léegi LMD mooy licence master ak doctorat c'est pour montrer l'importance ci élément boobu ci dispositif bi donc l'infirmier souvent mooy premier contact ak malade bi bu ñëwee moo koy recevoir bu ko recevoir jël consenté def le tri donc élément boobu nag dafa di élément boo xamante ni élément central la te loolu comme on a dit spécificité bi au niveau des urgences comme ni ngay amee les spécialistes dans les dans les dans certains domaines ñu ne kii dafa spécialisé wu ci domaine bële ki dafa spécialisé wu ci domaine bële infirmier bi nekk euh, urgence aussi dafa am un plus pour au premier vue mu mën a déjà xam lan la malade bi amee moo tax foofu la ñuy def tri am na ci sax déjà commencé na dans les structures où on définit les zones zone bu rouge jaune vert jaune rouge euh, euh, verte rouge ak orange maintenant loolu ça permet que infirmier bi def formation boobu moo xam ni kii bu ñëwee fii la fii la su ko defee zone boobu ku fa nekk dinañ xam kii ban taxawaay moo nekk ci yow et donc infirmier boobu gannaaw bu mu defee formation bi am diplôme am après doo génn commencé exercer te loolu formation balaa nga ciy dugg il sa bac def for def euh, formation pour trois ans am diplôme et loolu aussi c'est important que ñu taxaw ci pour dire que c'est un personnel très spécifique parce que avant même ngay dugg ca formation bi dangay def concours ça veut dire que segg dafa am balaa ngaa dugg ci formation boo defee formation boo pare dañuy defaat segg pour nga génn kon kooku ki ñu tàgg tàggat la donc crème la ci domaine bi nga xamante ni moom la nekk. am na noo solo nga xool ni Seydou euh, c'est vrai yaa ngi ak ak say bic ak ay couleur am lan la. donc c'est important pour dire que l'infirmier d'État est un élément central du système. xam nga boo ñëwee dans un service d' hospitalisation par exemple et service boo mën a jël dafa am lu ñuy tuddee feuille de température la feuille de température représente la carte d' identité du malade et donc bu médecin bi ñëwee bu konee takk rek war nag lire évolution feebaru malade bi fu mu toll sans pour autant même mu laal malade bi te loolu couleurs yi ni daf ciy jouer ça veut dire que chaque couleur am na lu muy représenter par rapport à la feuille de température boo xoolee Euh, big vert bii big vert la mën nañ ko génne ni nga gis ko donc boo xoolee big yi bu nekk dafa am signification quand tu prends une feuille de température et même pour confectionner une feuille de température dafa am nu ñu koy defee boo jëlee génnee marge mu jox la traitement yi ngay jël après constante yi ma waxoon léegi dañ koy matérialiser sur la feuille de température donc boo jëlee tension tension yaa ngi koy matérialiser ak bleu tension yaa ngi koy matérialiser ak bleu euh, pouls yaa ngi koy matérialiser ak rouge la fréquence respiratoire yaa ngi koy matérialiser ak noir la diurèse yaa ngi koy matérialiser ak vert. c'est ça donc loolu mooy actuellement SAE bi ñu nekk ni donc am na yeneen service ay service d'hospitalisation yi nga xamante ni dañuy hospitaliser malade yi leen defal ay soins en permanence soit ay pansements soit ay traitements ainsi donc euh, comme j'ai dit SAU lañ nekk nii. ñu bu ñu jógee ci salle de tri bi ba identifier malade bi bu dee un malade à garder en observation dañ koy installer ci box yi. donc ici au niveau de l'hôpital nous avons cinq box euh, euh, d'observation yoo xamante ni en permanence les médecins les infirmiers sont là pour surveiller et ce qu'il faudra aussi dire c'est à l'infirmière maintenant de veiller à la surveillance. est-ce que am non temps bi ça veut dire que comme la santé est à feu continu. donc les 24 heures parce que yoon moo tere ni benn agent warul liggéey 24 heures d'affilée donc li ñuy wax mooy 24 heures yi ni ñu koy daggee mooy da koy dagg ay garde de 12 heures de temps wala nga dagg ko ay garde de 8 de temps. en temps normal tey euh, benn malaat sànq yaa ngi koy wax bu fekkee dafa nekk ci lii show mhm. lan la soxla ci personnel boo xamante ni ñoom ñooy nekk à oui sa veut dire que wax ni euh, quatre lits chauds yoo gis war na am au moins infirmier d'état bu koy surveiller parce que mënoo lal bu nekk benn infirmière non mais norme yi dafa wax ni quatre lits chauds yu nekk war na am benn infirmier donc bi duggee ci salle bi gis nga am na fa quatre lits yu nekk foofu pour salle de tri salle box yi on a cinq lits donc booy xool déjà rek ci équipe bi par par que nombre la war na mën a am minimum. deux infirmiers d'État maintenant avec les agents de soutien qui tournent autour mooy l'aide qui lui sert souvent le matériel dont il a besoin la fille de salle ou le, le de salle qui assure la propreté de l'environnement du malade et du lit du malade donc loolu équipe yooyu yëpp da nga koy am étoffé ko pour mu mën a gérer malade bi nga xamante ni moo nekk ci lii chaud bi et bul fàttali ni boo nekkee ci lii chaud comme je l'ai dit c'est des malades qui sont euh, lépp lu yaramam soxla aussi da nga koy assurer mooy nursing yi ngay def toilettes yi ngay def et loolu yëpp ak malade yooyu ñu hospitalisé. léegi ñii ñoom ñooy ñi nga xamante ni service d'accueil et d'urgence la ñuy ñëwee maintenant am na ñoo xamante ni ñëw nañu ñoo xamante ni bu ñu jógee fii après dañuy nécessité tey ñu hospitaliser leen maintenant ñu dem xool ñi nga xamante ni ñu ngi leen hospitaliser xool aussi foofu euh, ñii di infirmiers yi ban rôle lañ lañ fa am ak lan la ñuy jouer foofu. voilà jóge nañu fi nga xamante ni moom moo di euh, service accueil et urgence di wax ni ñi ngi ci hôpital Abass ndaw ba tey di xool lan moom mooy rôlu ki nga xamante ni mooy infirmier bi paramédical bi ci dispositif bi waaye tamit ci système de soins bi nga xamante ni ndax ñi ngi ci li nga xamante ni moom mooy soins inf bari na ay cas yu nga xamante ni ñu ngi leen di dégg tey dañu bëggoon a xam nag importance bi nga xamante ni ñu ngi koy joué ci rôle bi am na ci ñoo xamante ni une fois aux urgences dañ leen di admettre bu ko defee hospitaliser leen moo tax tey ñu ñëw fii ci service hospitalisation bi pour wan leen comment ça se ak rôle ki nga xamante ni moom mooy infirmier bi. là-bas dans le dans la salle tous les malades sont, sont reçus là-bas avec des paravents. Mais quand on venu dans la salle d'hospitalisation, vous avez déjà, les compartiments sont déjà identifiés. Il y a, des ailes on réservé les hommes, il y a des ailes où c'est réservé les femmes. Parce que nous ne pouvons pas, dans un service d'hospitalisation, mélanger les hommes et les femmes. fi faral di la plupart du temps bu ñu waxee médecine interne. fii ñu fi admettre mooy boobu bu ñu recevoir fële benn urgence médicale. bu ñu levee l'urgence médicale ñu xam ne sur le plan médical dañ ko war a hospitaliser ci lañ koy indi en médecine interne maintenant bu nekkee dafa nekk urgence chirurgicale bu ñu levee l'urgence chirurgicale dañ koy yóbbu dans les services de chirurgie de même pour l'urgence obstétricale et pour de même aussi pour l'urgence pédiatrique voilà. ci département bu ci nekk wala service bu ci nekk boo demee fekk fa un infirmier boo xamante ni dina nekk au chevet. pour chaque service il qui est tenu d'assurer la continuité des soins. C'est pourquoi l'infirmier est transversal. Mm-hmm. L'infirmier, il est dans tous les services parce que dans leur formation, on les a préparés à faire tout traitement par rapport au malades qu'on reçoit. Maintenant, il y a des spécialisations maintenant, ça c'est les techniciens supérieurs qui se spécialisent en, en, en administration, réanimation, en, en, se spécialisent en radio, qui se spécialisent en labo. Et tout ça là, c'est dans le lot des infirmières. C'est un service de médecine interne où il y a le diabète et souvent avec les diabètes, malades dañuy am plaie. Peut-être on va essayer d'assister benn pansement bu def sur un malade diabétique qui a ñi ngi ci fekk sa équipe donc ñoom it euh, ay infirmières lañu. alors ñu topp leen ñoom it ba tey. pansement bi ñu war a def. comme on dit il y a un chariot. dédié à ça. chariot de pansement la mooy chariot de pansement bi ñu yor fii mais. moom lañ adopté parce que mooy trois rayons yi l'essentiel comme nous avons les trois rayons c'est bon mais l'idéal mooy boo euh, du am deux niveaux bu dee vrai chariot de pansement du am du am euh, ñaari compartement yi day am benn niveau bu jàll ba sës deuxième rayon bi day jàll ba sës troisième rayon bi day jàll ba sës maintenant à défaut de ça on a utilisé chariot bi pour en faire un chariot de pansement lii plateau la mais mais kii boîte boîte pansement la donc li ci suuf lii ci suuf nii mooy produit mi utiliser pour def les pour def les mooy savon bi euh, sale bi pour rinçage beeg yooyu comme dañu ñoo fekk malade bu nekk malade bu hospitalisé tëdd ci lalam aussi da nga wut à de protection boo xamante ni ci ngay teg tànk bi bu comme bu dee tànk la bu doon loxo la même chose leneen lu mu muni doon tamit à bi njëriñ bi mu am mooy boo fajee du takkal drap malaat bi parce que aussi malade bi dafa nekk ci conforme boo xamante ni da nga war a def sa soin normalement sans pour autant nga nga nga indil jafe-jafe malade bi. beneen bi ñu war a rappeler aussi mooy soin bi muy def nii dafa ñëw préparer ndaw si ma soxna si pour wax ni ko maa ngi ñëw defal la pansement te loolu yëpp rôle infirmier bi la sa veut dire que moom la ñuy wax la préparation psychologique ça veut dire que ni quel que soin booy def ci malade bi. comme ni ñu waxee léegi bu dee tri la urgence la c'est des gestes rapides mais bu dee malade bi dafa hospitalisé nga war ko ñëw defal si benn acte da jiitu ñëw préparer ko ba mu d'accord lii nga xool defar mu bañ a doon mbetteel ci moom su ko defee day am collaboration parce que moom it te boo paree liggéey pare nga remercier ko ndax moom it dala dimbale pour permettre la nga def sa liggéey bi nga war a def santé daal dafa humaniser. c'est ça donc c'est l'humanisation des soins et loolu c'est parce que souvent booy faj du parce que góom bi rek moo la intéressé mais ci nit ngay faj te foofu dafa jaar taxaw un mooy l'infirmier est toujours en contact avec son malade voilà donc ñu bàyyi ko mu commencé def pansement bi pansement bi ñuy def dañ koy dugal ci cadre pansement septique dafa am ñaari façon pansement dafa am pansement aseptique am pansement septique un pansement aseptique mooy quand tu fais un pansement sur une plaie opératoire par exemple mooy une plaie qu'on a créée dans le bloc opératoire c'est une plaie exempt de tout micro-organisme alors que euh, un pansement aseptique dafa nekk pansement boo xamante ni am na présence micro-organisme micro-organisme mooy ay germes même bu nekkee tegoo ci bët jàpp nañ ni lépp lu traversé ngelaw li rek nekk na Euh, microbe. moo tax comme je l'ai dit tantôt nga koy faj. da ngay ñëw préparer ko ci kaw préparation bi di nga gis malaat bi dina la gis di ngeen waxtaan nga gagné confiance bi moo xam ne kii kat dafa ñëw pour dimbali la dafa ñëw pour jàppale la bu amee confiance ci yow rek bu day collaborer maintenant bu nekkee confiance boobu amul malade bi mën na bañ a collaborer lu tax nga may defal lii xoolal ni nga ma gaañee fekk na booba defoo préparation moo tax dañu wax ni les soins balaa nga koo def toujours. il nga préparer malade bi bu nekkee ci état bi nga xamante da nga ko war a préparer pour mu mun a collaborer jox li li nga bëgg parce que kii boo ko préparé wul woon tu moom sax mu ngi participer ci pansement bi pour wax ni fii ak fii su ko defee loolu elle accepte le pansement et elle est en train de collaborer avec l'infirmière qui est en train le soigner. bu ñu koy wax est-ce que mën nañ ci wax ay soins de base. oui oui soins de base ça veut dire que dafa am loo xamante ni obligatoirement da ko war a maîtriser mooy mooy mooy les premiers soins. ça veut dire ni balaa ngaa dem lavage des mains c'est important et loolu c'est technique boo xamante ni tout infirmier war na ko maîtriser mooy boo boo ne tag ci hôpital rek da nga war a def lavage des mains lavage des mains nag technique la du ñu raxasu nii rek dem parce que li ñu bañ mooy booy ñëw nga andi fi doomu jàngoro pour éviter loolu boo dugg si hôpital loolu sax ça ne se limite pas aux infirmiers à tous les niveaux képp kuy soignant wala képp kuy médecin boo dugg see li ngay njëkk a def mooy nga def lavage simple des mains boo xamante ni kooku c'est le chirurgien ki koy def mooy lavage chirurgical mooy yi nga a dugg bloc noonu ngay raxasoo donc ñaari façon raxasoo yooyu loolu base la boo xamante ni c'est important pour surtout insister ci li ñu waxoon léegi sur l'hygiène et la sécurité par rapport aux aux, aux patients. au-delà am na aussi. Euh, à domicile a keneen ak yeneen yoo xamante ni infirmier wala infirmière bi am na fa euh, service yu nga xamante nii mën na nekk dans des possibilités pour def ko. oui oui ça veut dire que boo nekkee infirmier comme je dis tantôt dafa transversal donc soin bi mun nga ko defee hôpital bi comme soin bi mën nga ko defee à domicile parce que souvent tu vois des malades yoo xamante ni comme on di bu dee malade la boo xamante ni euh, amul dépendance bi sur le traitement parentéral mooy ay piqûre ay perfusion ay doom yu la mën na toog këram naan ko bu nekkee maintenant dafa am plaie les gens tendance boobu la ñuy def léegi mooy di ko defal des soins à domicile naa booy def en les soins à domicile foofu sax ci la euh, euh, euh, mesures yi nga war a jël foofu la gën a war a yokkoo parce que xam nga souvent hôpital am na nu ñu ko tëralee ba nga xamante ni di nga mën a éviter yenn infection yi mais bu dee kër dëkkuwaay la et donc loolu aussi je pense que ni dafa am solo pour ñi nga xamante ñu ngi def des soins à domicile ñu bàyyi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax parce que protection bi ci war pour éviter indi jafe-jafe ci ñi nga xamante ni ñoo dëkk ak malade bi ci këram donc loolu c'est des techniques yoo xamante ni aussi comme ni ngay defee soin ci hôpitaux yi rek da koy defee noonu sa kër mais yokk nag euh, pas-pas bi par rapport ak prévention bi. voilà mi ngi noonu kon mbokk téléspectateurs yi defal nañu leen tey benn tour immersion ñëw fi nga xamante ni mooy centre hospitalier Abass ndaw ñu amoon nag taxaw seetlu boo xamante ni dañu intéressé wu sur le rôle de l'infirmier. ci dispositif bi ñi ngi koy wax ñu xool ci soins inf def nañu SAU def nañu tey jii nii salle d'hospitalisation bi ci service bi xool war nañu leen lenn ci lu bari loo xamante ni infirmier bi mi ngi ci yëngatu di ci wane boppam gis nañu ni nag selon l'actualité cas yu ci bari yu nga xamante ni jot na am mais saa yu amee liy jaaxal nit ñi au premier degré incrimination ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnel paramédical bi loolu tey tax na ñu bëgg ci beneen kasket major ñu bëgg tamit taxaw ak moom ci li nga xamante ni tey moom mooy liy xew major ñu dellu waat la Arona. oui maa ngi lay fay Moussa di leen gërëm euh, te di leen sant ci ci liggéey bi ndax dafa am solo. Mhm. parce que ni nga ko waxee léegi coow li bari na jàppal bàyyi ci infirmier yi wax ji bari na mais dafa jaadu ñu xam li ñuy daj ci service yi ak ban rôle la ñuy ci biir hôpitaux yi. alors jaar-jaar bi am na am na solo li ngeen di jariñ ak fi ngeen taxaw ci wàllu système bi am na solo mais tey naka nga jàngatee jafe-jafe bu am ak lu taxaw rek daanaka ci seen kaw lay dal. loolu ñaari jàngat lañ ci am mooy li tax ñu ni soignant bi moo ko def c'est parce que dafa nekk. Mhm. donc loolu déjà lu am solo la. ni bu fa nekkul woon kenn du ko tudd. Mhm. kon ça veut que ni pièce maîtresse la ci biir système sanitaire bi. Mhm. kon ça veut dire que ni toujours malade bu ñëwee rek am na contact un soignant infirmier sage-femme technicien supérieur ñoom la ñuy tuddee en général les paramédicaux. ma wax ni kon loolu moo wane ni ci système bi 70 à 80 pour cent des activités. mu ngi reposer ci mbaggu personnel boobu. nga xamante ni ñooy cheville ouvrière système sanitaire bi. donc loolu xëy na tax na ba lu mën a am rek nga gis leen ci biir wala lu mën a xew nga gis leen ci biir te loolu mooy wan ni ils sont en permanence dans les services de soins. Mm-hmm. alors tey yow garde yi nga xamante ni ñu ngi koy wax kan moo koy organiser nan la garde yi di demee ak boole ceet équipe bi nga xamante ni mooy nekk de garde. voilà garde yi par rapport au service euh, de soins. Mhm. c'est organisé par le chef de service des soins infirmiers mooy ñun li ñuy amee tey mooy rôle bi. Mhm. ñun ñooy établir système de garde bi nga xamante ni noon la war fonctionner. léegi bàyyi chaque surveillant de service mu établir listu infirmières yi. Mm -hmm. ça veut dire que ni gardes yi actuellement pour la plupart des hôpitaux dañuy organiser des gardes de heures de temps. Mhm. pour mën a couvrir les heures. ça que chaque heures de temps boo ñëwee ci hôpital infirmier ma nga fa. Mhm. sage-femme ma nga fa technicien ma nga fa. Mhm. chaque heures de temps muy guddi muy bëccëg. donc loolu mooy organisation bi nga xamante ni actuellement noonu la hôpitaux yi di fonctionner boo demee ci. plan périphérique périphérique bi kooku beneen dispositif la mais boo ñëwee ci hôpitaux yi nga xam fi lañ ëpp lu ñuy gis système boobu la nga xam moom la infirmier di liggéey bi moo koy organisé maintenant surveillant de service yi moom la ñuy tuddee anciens les majors mhm. léegi maintenant ñu ngi leen tuddee les surveillants de service ñoom ñooy surveiller roulement roulement boobu def aussi le suivi des soins alors suivi boobu ngay wax assurance bi équipe bi yaa ngi wax li koy composé mais norme bi lan la laaj ci garde bi ak équipe bi nan lañ war a toll norme bi dafa yomb dañ wax ni boo amee service boo xamante par exemple am na euh, vingt et un wala trente lits lits yooyu ñu nekk ay lits communs donc da koy diviser par sept soo ko diviser par sept nombre bi mu la jox moo war a nekk nombre de infirmiers yi bi nga xamante ni moo war a nekk par garde mm-hmm. par exemple bu dee calcul bu gën a yomb trois fois sept vingt et mm-hmm. léegi boo amee vingt et un euh, lits jël trois infirmiers chaque garde war na am trois infirmiers. Mhm. kon ça veut dire que ci vingt quatre vingt quatre heures bi war nga am six infirmiers yu war a def assurer garde bi. Mhm. loolu dafa di loo xamante ni mooy norme yi mais pratiquement loolu amul. Mhm. ba nga xamante ni charge bi infirmiers yi di liggéey ëpp na sax déjà li ñu leen doon xaar dans le système. li tax amul loolu. parce que recrutement bi war am. Ah. ak formation bi war a am moo amul. ndax boo ko seetloo ENDSS bi nga xamante ni moo war a former infirmiers yi depuis de dix ans presque mën nañ ko wax. defatul formation pourquoi je dis ma ma ma taxaw ci 1DSS eh, eh, bi ndax 1DSS bi moom la état jox lépp luy moyen pour mu former les bons infirmiers. 10 ans ngi nii defu ko. presque 10 ans 10 ans j'ai pas la date mais ëpp na 5 ans formé wu ñu. infirmier d'état génn. formé wu ñu wu ñu sage-femme d'état. waaw et y a des des aussi mooy les techniciens supérieurs loolu ëpp na 10 ans on les a pas formés. Mmh. donc loolu c'est des problèmes yoo xamante ni état la quand la formation. booy def formation da nga déjà da ngay sa gap. Mhm. boo xamee sa gap nga ni dans le système ni système bi tëddee te loolu yomb na xam ça veut que ni ñoom état tey mënoon na la wax ñaata lii la am dans le Sénégal. boo jëlee nombre lii yooyu nga mën a xam ñaata infirmier ñoo war a mën a assurer les vingt quatre heures. ça demande une planification. planification boobu boo ko amee yow nga tijji concours jël nombre bi nga soxla pour former leen. à vous entendre Arona euh, déficit de personnel bi danga koy confirmer. ni lu criard déficit criard de personnel moo am dans les structures surtout par rapport aux infirmiers diplômés d'État aux aux paramédicaux au personnel qualifié en général. mais ratio bi joxe benn infirmier ñaata war toppatoo cay nit. dama ni benn infirmier ñeenti lal. bu dee lii chaud la benn infirmier juróom-ñaari lal la bu dee lii chaud. léegi qu'est-ce qui se fait actuellement bu dee froid. waaw nga xool ko. ak li ñu jot jàngat que ce soit Tivaouane que ce soit tey jii nii Linguère li fa xewoon que ce tey Louga li fa xewoon tey lan ngeen jàngat ci yéen yi nga xamante ni yéen a ngeeg infirmier yi. ñoom rotation yi ñuy def. lan la ñuy toppatoo importance bi mooy avant même rotation bi. oui mooy infirmier bi balaa moo jot ci malaat bi day fekk ñu recevoir ko. waaw datu infirmier bi mooy recevoir malade. Mhm. médecin bi mooy recevoir malade jàpp ni malade bi war naa ko entrer. kon donc bu problème amee pourquoi souvent ñuy seppi infirmier bi waxuma nañ seppi médecin bi wala autre chose j'ai dit que c'est une équipe. Mhm. bu problème amee dañ koy saytu xam lan la mais infirmier bi nga xamante comme wax naa la ko léegi moom il est tenu d'être là-bas 24 heures sur 24 donc moom moo fa nekk xëy na teew gi mu fa teew moo ko dugal mais te teew boobu mooy liggéeyam. Mhm. donc ki nga xamante ni moo décidé. ni malade bi war nañ ko jox lal wala malade bi war nañ ko mën a entrer mais kooku moo indil infirmier bi ne ko malade bi kat jox naa la ko nañ ko saytu mhm. léegi nag bu ba jafe-jafe amee non seulement kii saytu da koy xool mais ki indi malade bi aussi laaj na ñu woo ko gannaaw loolu am na yoo xamante ni infrastructure yi ñoo ko andi ndax boo jëlee kaawu Tivaouane mhm. man mënuma comprendre lu tax nga tëba-tëb daal di jàpp ñi nga xamante ni ñoo fa nekk te fekk na li ko andi du ci seen cadre liggéey mhm. bu nekkoon ñoom branchement moo leen fu bàyyi wala leneen moo leen fu bàyyi bu problème amee jógee foofu dañ ni kat lu tax defuñ ko mais ñoom suivi traitement moo leen fa bàyyi bu médecin bi defee traitement ñoom ñu def suivi bi looloon fa bàyyi léegi absence bi ñu wax ni waroon nañ fa nekk nekkuñu fa nag non loolu je pense que c'est à voir mhm. xam nga waroon nañ fa nekk nekkuñu fa loolu beneen domaine la mhm. parce que boo fa nekkulee aussi kooku mën nañ ni responsabilité infirmière mën na engagé mhm. mais il faut comprendre même bu fi infirmier bi nekkoon Moussa am na ñoo xamante ni c'est naturel nit mun na boo explosion amee day sauver ba kanam uh-huh. ndax dañ naan balaa nga assurer sécurité nit assurer sa sécurité ba pare uh-huh. léegi nag dégg nañu aussi ci biir foofu sax am na koo xamante ni saxaar si dugg na ko ba mu ba ñu yóbbu ko urgence mais donc loolu dañ ni amuñu ñun jafe-jafe ñu situer les responsabilités di uh-huh. na leer mais dañu ni balaa ñoo jàpp di incriminer nañ xam ku ci nekk lan mooy sa responsabilité d'abord d'accord alors ni ngi jëm ci tey jii nii ay réforme ñi ngi koy wax boobaak léegi di ko junj tey lu jëm ci ñi nga xamante ni ñooy personnel paramédical bi fan la ñu war a taxawee vu importance ci système sanitaire bi tey lan ngeen war a am ak lan moom mooy tey jumtukaay yi nga xamante ni war na leen dooleel ñu gën ko war a mën a organiser ba boo nee jàkk xam ni kii infirmier la wala kii lii la kii lii la ci lan ngeen war a wékku. xam nga li nga xamante ni déjà processus la moo xamante ni état jël na ko depuis 2009 mooy def ni léegi niveau infirmier yéeg na. léegi ci bac la ñuy duggee seen formation génn pour leur première sortie en tant que des licenciés en soins infirmiers. oui am na master am na doctorat. Mhm. foofu la ñu jëm donc ki nga xamante ni am na. loolu gestion de carrière bi la. mooy mooy gestion de carrière ñu gis benn docteur Arona. c'est ça mhm. maintenant kuy am lool nag ki am loolu nag bu génnee war na mën a ñëw nag ci jumtukaay bi fekk fa. matériel bi nga xamante ni moom la war a liggéeyee parce que aussi buñ la boo yoree te dama koy wax souvent dans la ci code déontologie santé. oui amuñu obliga obligation de résultat. mais, mais obligation de moyen ok léegi lu xam-xam bi bëri bëri. lu xam-xam bi euh, fort fort boo amul moyen yoo ko appliqué du jariñ. Mhm. donc je pense que loolu mooy équipement bi ñu war indi ci biir structure yi ba pare réformer. Mhm. réforme bi mooy comme li ñu wax léegi boo dugg sa hôpital nga xam kan mooy kan. Mhm. te loolu c'est très possible. lu mu nekk volonté politique. su ko defee soo yow boo dugg cité hôpital boo nee jàkk aaroon nga ne kii de ci cadre infirmier la boo nee jàkk diw nga ne kii de sage-femme la boo nee jàkk diw nga ne kii de médecin la mhm. loolu te am na ay code am na ay blouse am na ay badge dañuy yooyu c'est des choses yoo xam te ni c'est minimum te bu ñu ko defee vraiment tout le monde gagne mhm. loolu mooy ci wàllu personnel bi nga ñëw ci wàllu euh, infrastructure yi mais dafa am jéem direction des de l'investissement de l'équipement et de la maintenance mhm. loolu moo war a saytu investissement yi ñu war a am moo war a saytu euh, équipement bi ñu war a def ba pare maintenance bi nga xam dafa am maintenance préventive ak maintenance curative. et que commande bi conforme par rapport ak. livraison bi c'est ça le problème. ça dire que xam nga loolu moom bu liggéeyee liggéeyam rek. parce que léegi am na ci benn scanner bu ñu commandé woon fii mais bi defee commande bi ci lañ doog a lancé pour pour pour pour pour defar ko. Mhm. loolu mooy yoon nga xamante ni lii laa soxla lii laa soxla ñu def ko parce que souvent moi je dis yi ngay jënd. est-ce que biñ koy defar dañ ko defar pour mu servir Europe. Mhm. wala dañ ko defar pour mu servir Afrique. te loolu mhm. les gens ne le pas en compte. Mhm. te loolu dafa am solo par rapport ak matériel bi nga xamante ni moom la ñuy indi dans les structures pour di ko liggéeyee. loolu beneen la mais mu am beneen bu am solo mooy la direction euh, de la prévention des risques professionnels. oui loolu mi ngi caisse de sécurité sociale. xam nga ban njëriñ la am. dañu wax ni établissement yi léegi ay entreprise lañu. te lii tax mu dox mooy personnel am am sécurité. client nam am satisfaction. léegi direction boobu nag moo war a ñëw saytu lépp lépp risque. ndax am na extincteur ndax am na bouche d'incendie ndax ndax ndax ndax ndax. Mhm. loolu direction boobu aussi ñu mettre ko en contribution je pense que loolu bu ñu ko commencé rek sécurité war na mën a am dans les structures. parce que sinon non seulement maladie dinañ nekk en risque mais personnel biy liggéey aussi dinañ nekk en risque. alors tey ñu ngi wax lu jëm ci wàllu ordre des infirmiers. vous pensez que ni tey bokk na ci lu war a mën a régler situation yi dafa dafa dafa di obligation parce que xam nga njëriñu ordre lan la mhm. njëriñu ordre mooy képp ku ci bokk sa naataango yi ñoo lay surveiller mhm. donc balaa kenn wax ni kii def na faute kii deful faute sa naataango yi ñoo naan ah lii de du sa liggéey mhm. lii ñoo koy réglementé ñoo koy réglementé li ko def mooy boo ko réglementé wul ku mu neex nga sol blouse ñëw ni infirmier taxaw laa et maintenant bu dexee tooxi doona dañ naan infirmier yi def tooxi doona médecin yi am nañu ordre sage-femme yi am nañu ordre te ordre des infirmiers obligation la parce que formation bi ñu leen defal nga dem licence master doctorat ba pare ñu bàyyi la loon sans ordre te dafa am solo gis nga mhm. Europe balaa lañ laa embauché il faut que nga inscrire ci ordre bi d'abord mhm. te boo xasee def problème ba ñu rey ba ñu reyee la kenn mënatu laa jël donc loolu foofu la ñuy yegg su ko defee profession bi ñu jox ko gëddaam parce que comme li ma la wax léegi c'est un personnel euh, obligatoire c'est un personnel central mais kooku boo ko joxee ordre vraiment mu organiser profession bi je pense que on peut réussir beaucoup de choses et on peut sécuriser même euh, la profession par rapport ak hôpitaux yi. donc ci li ñu mën a dégg moom mooy bari na ci ñeen ñoo xamante ni ñi ngi naan infirmier lañu waaye tey amul ci lenn lu ñuy amaana lu ñuy wékku. non non no moom laa wax léegi xam nga mentalité bi nit ñi di demee boo ne kër docteur dañuy def da xool si yow say say dëkkandoo rek tey boo ci amoon tey ku ñu embauché affecté ko benn hôpital rek da nga naan même bu nekkee sax ci côté administratif la nekk donc loolu buñ il faut ñu normer ko donc infirmier bi dafa def formation comme wax naa la ko balaa moo dugg dañ koy segg balaa moo génn dañ koy segg kooku c'est la crème donc kooku da ko war a protéger ni ñu koy protéger nag mooy nga fexe ba mu am ordre pour su ko defee kenn dootul am sañ-sañu ni kii mu ngi def rôle infirmier bi fekk na tul infirmier. de façon plus large code de la santé publique gëmuloo ni tey yamatul rek ci wàllu corporation. mais tey lu jëm ci wàllu suñu santé ci boppam kenn ku nekk xam sa statut lan la hôpital boo fa duggee xam kenn ku ne fan lay teg tànk loolu mooy farata te loolu mooy yoon te foofu la évolution bi jëm parce que code santé publique boobu loolu mooy njariñam doo ko def rek problème Moussa problème Arouna problème keneen déedéet dafay nekk problème boo xam ne c'est national mhm. j'ai toujours aimé un des ministres boo xoon ni bu njëkk dañ leen wax ministère de la santé et de la population. Mhm. ça veut la santé ne laisse personne indifférente. Mhm. kon loolu dafa am solo su ko defee kenn ku nekk individuellement nga def ko sa solo bopp. Mhm. ndax dama wax ni économie dëkk ñu ngi koy jànge aussi ci gu yaram askan bi. parce que bu askan bi amee wér. économie day avancé ndax ku nekk da ngay nekk en activité boo amul wér da ngay daal di tëdd boo tëddee tout est donc loolu code boobu dañ ko a gaaw vulgariser que ko pour que dootul ci rek ci corps mais dafay nekk ci dans le système ba nga xamante ni même ci système bi day bàyyi xel ci wér-gu-yaram lépp luy taxawaayam pour mën a contribuer ci avancement wér-gu-yaram daf koy def. Aaron nañu sant la gërëm la. maa ngi leen di gërëm Moussa di leen sant di rafetlu émission bi wax ni lu am solo la te lii dina permettre kenn ku nekk xam rôle bu mbokk yi coono bi infirmier di daj dans les structures sanitaires jërëjëf. alors mi ngi noonu urgence la woon il fallait que ñu wax taxaw seetlu ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy infirmier yi rôle bi nga xamante ni moom la ñuy joué mën nañu dem urgence. moo xam yaa ngi dégg au bloc opératoire mën nañu def entretien ak ñi nga xam ne ñoo di médecin mais ñoom saa yu ñu jógee rek ñi nekk seen ginnaaw ñoom ñooy infirmier yi ak équipe ngeen bi nga xamante ni moom la ñuy faral di àndal ngir nag mën a toppatoo ñi nga xam ne ñoom ñooy malaat yi mbokk yi ñu sant leen gërëm leen beneen jamono ñu ñëw ak ci beneen numéro jaa ngeen jëf. Sunu Assurance, notre métier, l'assurance. Cette émission vous est offerte par Wave. Payez vos achats avec Wave, c'est simple, rapide, sans stress. Scanner, c'est payé. Wave sa xaalis yaay boroom. dolli Ensemble, entreprendre l'avenir.